nangu jël sa fiche de loolu tamit ban xeetu stratégie la foog ñu comprendre ban xeetu stratégie la Sonko mooy suñu candidat waaye au même moment am na ay candidat yu bëri yu jóge Pastef loolu tamit nan lañ ko mën a comprendre waaw si bu njëkk bi mooy arrestation waaw ñu koy di nekk bokk ci responsable yi mm-hmm. bokk ci bureau politique bi mm-hmm. waaye nekk une lumière dans le parti mm-hmm. ci liggéey liggéey bu am solo intervention responsable et éclairée à l'endroit du peuple sénégalais surtout des militants mhm. kon su ma yëgee ni si anam yi il paraît que dafa nekkoon seen TV émission Ndoumbelane mhm. mu génne ñu jàpp ko du ma def lu ñaawlu ko di sàkku nag ñi ko téye nañ ko bàyyi immédiatement te ñu bàyyi yi ñuy def bu Sénégal yi nekk si émission si ay plateau ñu leen yëddu di xool lañ fay wax lañ fa dul wax pour après di leen xaar ci buntu rajo ba bu ñu télé ba. pour après xañ ko xañ leen njabootam pour après yóbbu ko di ko garder di ko jëm intimider yooyu ça ne passera pas. Amadou Ba ñëpp xam nañu c'est une lumière pour pour la jeunesse pour le parti pour le Sénégal de façon général ay ay intervention yi responsable di leeral nag surtout nag si xam-xamam ak jaar-jaaram li nga xam ne moom la peuple war a xam li si des nag mooy ñu ngi xaar ba am d'autres informations supplémentaires pour xam. sur les véritables raisons de sont liées à cette arrestation. Uh-huh. mais li ma gis ba gis que mooy il doit être libéré immédiatement et sans condition. beneen bi mooy li ma laaj léegi candidature yu bari xam nga tamit ñun dañ leen di wan chaque jour ne leen du ñoom ñoo ñu jàngal politique. dañ fi jàppoon ne way Ousmane Sonko aura un plan B di